na ngeen di abonné fii ci Darou Motivation di abonné bes cloche notification bi partager vidéo yi ngir bépp vidéo yi ngeen dugal la ngeen bok ñu ko njëkk jot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mbokk yi sifre sunu chaîne bi di Darou Motivation Actu ñoo leen di ñaan ngeen wéy di abonné bu baax a baax te partager vidéo yi mooy tax saa yu dañu mën dugal bi doo ak yéen te ñëwaat dañu gën a fekk xibaar mu wàcc lii moo di ndi soog ndayu sart réew mu Sénégal ndi soog ndayu sart réew mi maanaam jamono ji ñoo di ndayu sart réew mooy waa conseil constitutionnel ñu conseil constitutionnel ñoom jamono ji nag maanaam fekk si nañu ki nga xam se ne moo di njiit réew mi di président Macky Sall ci dogal bi nga xam ñoom ñaar ñu ko bëggoon am conseil constitutionnel jàpp la 30 kii nga xam ne moo di président Macky Sall daal di jàpp la 24 mars bi waaye nag ci conseil constitutionnel ñoo xam ne le 24 mars moo intéressé ki moo di population sénégalais ak képp ku sénégalais daal maanaam le 21 mars le 24 mars boobu moo ñoo di waa conseil constitutionnel ñoom jox nañu fekk si nañu ki nga xam ne moo mu ci lañ jàpp ni war cee amal jongante tànn njiit réew mu président Macky Sall jamono ji na moom képp kuy sénégalais daal ñi ngi rafetlu bu baax a baax ba tax na tey itam yi nga xam moo di jongante tànn jiitu Sénégal nag jamono ji campagne yi dina door maanaam dina am ci diggante le 10 mars jàpp le 22 mars ci 2024 bi ci lay commencé maanaam ci lay door moom campagne en général daanaka campagne mën nañu sax le 21 jours daan doon wala 15 jours jamono ji daanaka mën ñoo xam ne sax fii 15 jours yi mën a bañ a mat ndax diggante moo xaw a gàtt lool ba xaw a jéggi dayoo ci 2024 boobu ba tax la wax bu nekk nag dinañu ko may lu toll ci 3 simili bis bu ca RTS 1 mu ne candidature yi quand kenn ku ne am na ñu ñu wax ni daanaka dañuy xëdd voté ndogu ciblé ñoom parti ñoom jamono ji lañu daa amuñu keneen amuñu yaakaar ci keneen ku dul Ousmane Sonko ba tax na jamono jot tamit li gën a bëri safaatee li nga xam ne moo di ak lakk gu métti métti moo amoon fee moo di attuwaaykat bu Dakar maanaam tribunal bu Dakar ci ci ci suba si si mbaraan nah, takk-der yi jot nañoo genn ñom ñep ña fa nekkoon jot nañoo genn waaye lata fay ka di di lak yek ci ñom fay ka lak yi lata ñom ex si ñoom ñaar tak takk-der ñëpp génnañ ba wax nañu ne manam bitelu bitelu gas bo gaz ko ñu fa moo di at at way atuwaaykat mooy tribunal biteelu de gas mo exploser mo wara lance mo lak yi yi lak ko day wara xona met lo di ngeen jëf bokk na ngeen way di abonné fi ci dar Motivation di abonné bés close notification bi partager vidéo yi ngir bép vidéo yi ñu dugal la ngeen bokk ñu kenn ci ko jot jërë